daara ji meññeeti daara ji nga xam ne foofu leen yaroo la daga naa léegi ñoom fi fukki at ak juróom place bi ñu tuddee ko daarul miraaya ñëw neen nag di ci def li nga xam ne mooy jàngale Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu ndax moom danaan wax ne nga xam ne mooy philosophie dundam mu ngi koy jàngee ci benn aaya alquran wa maa jaalnaahum jasadan laa yaakuluna taama wa maa kaanu xaalidin yàlla mu ne defuma leen ngeen ni jëmm yoo xam ne du ngeen ñàkk lekk kon foofu da nga da nga liggéey mu ne waaye tamit dafa mën ngeen nit ñoo xam ne da ngeen sax ci àddina kon foofu jaamu yàlla taxaw kon nag jaamu yàlla bala moo wér xam moo koy jiitu mooy mooy mooy njàng waaye tamit ak yar te tamit nit mënta euh, jàng nit mënta jaamu yàlla lu may bu lekkee ngir jëmmam ji man fee nekk bala naan naam ne fa loolu nag moom leen ñëw pour jëm koo jëmmal fii samp fi daara alquran bu ñu jàngal alquran di fi mokkale alquran alhamdulilah boo ñëwee ci daara ji di nga fi fekk tamit ay jàng yoo xam ne ñu ngi tàmbalee ci ay suñ moyenu bopp mbaari ñax waaw ndax dama gëm ne moye moyenu doomu aadama mu ngi ci biiram nit war ta xaar ku ko defal waaye da ngay def da nga mane ba yàlla ñëw ak mbiram wala beneen jàmm yàlla jàpp ci mu gën a mu gën a mat ndongo yi nga xam ne nekk leen fi tamit duñ doomi réew mi kese ndax dalay jàngal bàyyi ni mu mel ci àddina bi noonu la daara ji mel boo ñëwee bu fekk waa Nigéria yi ñu bëri lool jege nañ fi 90 presque waa Niger ñu ngi fi waa Mali mu ngi fi Côte d'Ivoire mu ngi fi Niger tamit am nañ fi ay seeni doom ba léegi tamit Gambie seen i doom yaa ngi fi Guinée tamit dégg nga seen i doom yaa ngi fi ba Mauritanie ci wàllu Fuuta bi am na ñoo xam ne tamit ñu ngi fii nii kon man nga wax ne daara ji presque euh, sous région bi. Euh, li ci ëpp ci seeni doom ñu ngi ci daara ji fii nii di fi di fi jàngee loolu sant sa sa sant yàlla la waaye euh, tërëlin bi nga xam ne moo fi am jàng la ba pare waaye tàggat la tamit dëngëre ci liggéey loolu moo waral nga gis tool bii nii ni ñuy bayee tey ci bu nawet jot bu noor bi jotee ñu ngi bay su nga fi euh, gàncax yaa ngi nii am nañ ba initier sax def fi tool yi tool boo xam ne tool yi moringa la mooy euh, nebedaay bi ak njëriñ li nga xam ne am na ko ci paj ñu koy dimbali ko ñun di faj ci daara ji ba pare waaye tamit ñu ngi ciy yaakaar ne buñ ci amee ay partenaire ñu ñu mën cee jëflante ak ñoom pour tamit revenu boobu noonu di dellu pour dimbali ñu ci dund ak daara ji mboolem xeeti gàncax yi nga xam ne légumes yi ñu ngi ko fiy jéem a bay gis nga ko nii boo duggee ci biir tamit da nga fa fekk jur ñu fay jéem a yar surtout produit local bi moom leen gën a euh, muy ganaari local yi dégg nga copine yeeg yuy demee noonu xeet yi fi nekk yu bari ñu ngi koy yar fii dégg nga de ci daara ji ak i e, gàtt yi nga xam ne ñoo fi nekk waaye di nga fi fekk ba léegi tamit e, fuur boo xam ne fuuru tradition la li ñuy ndekkee ci daara ji ñun ñoo koy xale yi dama leen yóbbu ñu former leen ba bañ man koo defar ñoom ñooy defar mburu mi nga xam ne moom la ñu jëfandikoo ci daara ji fii nii loolu yëpp bu fekkee ne mooy ni gën naa yaatu dinañ dem ba yóbbu ko lañu lañ ca soxla ñu am ko ca la ca des tamit ñu jaay ko mu gën a yokk koom-koomi ji ñaareel ba tamit nga ñëw fekk fa xale yoo xam yeneen xale yoo xam ne forme tàggat nañ leen ci mën a defar saabu mën a defar saabu ak euh, légume bi fruit de légume ni nga xam ne noonu lañ ko mën a téye mu yàgg xale yi yëpp mën nañ loolu. loolu nag mooy dëgëral aspect bi ma wax ci ne. daara ci jamono bu njëkk formation bi moo fi amoon ndax euh, dangay fekk sëriñ daara bi muy jàngale xam-xam di jàngale alxuraan waaye tamit dégg nga di bay. di bay ñuy jàng foofu tamit euh, rabbu waaye tamit di yar ay jur waaye euh, daara joo xam ne dafay sukkandiku te xale yi di leen génnee di leen yelwaana di leen yelwaan loo loolu amutoon am yelwaan di uti xaalis laay wax waaye yelwaan uti ji lekk naam amoon na ndax sëñ daara bi man am amul doole pour dundal taalibe yëpp bu ko defee xale yi di génn di ndimbal ak société bi di ci jàpp ñuy sarax xale yi dégg nga lu ñuy lekk waaye nag xale bi gën dem indi ji ay mille indi utul ma mille nangam ak nangam kooku entreprise nga amee waaw ba tax na bu koy gouvernement bi di tere nag nga dégg ku naan dañuy xeex diine de xeexuñ diine ñooñu dañuy dimbale diine parce que am na ñoo xam ne dañuy yàq turu daara te euh, loolu nag euh, ma moo tax ñu ñu samp lii di ci dund alhamdulilah rabbil alamin njàng mi mu ngi dox te lépp tamit dégg nga mu ngi tegu ci yoon am na ay contrôle ni ñuy bayee ci noor bi bu nawet jotee tamit noonu la ñuy bay. feebar bi ba mu fi dugg si yaakaar naa le deux la fi dugg boobu nit ñi xawuñ ko kii noonu man ma demoon Casamance benn gàmmu samedi boobu noonu tombeek le le treize defe naa ci la président génne décret ay mboolem mboolem daje yi maa ngi ñib si le quinze ba ma ñëwee relan instauré loolu sa raxasu bi fii jiitu naa ci euh, njëkk ñuy lancé mbir mi man fekk naa fekk na ma ci ba nga xam ne tey daara ji kenn du fi dugg lu may dangay ngay da ngay da raxas say loxo soog fee dugg xale yi tamit noonu waaw mboolem daal lu état bi euh, teg ci wàll wàll feebar bii nii ñun ñu ngi koy appliqué cent pour cent alhamdulilah tey xale yi ku ci buñ génnee ci daara ji dañuy raxasu am na ay jaamu yàlla yoo xam ne indi neen fi ay liquide yu ñuy yu ñuy kii fekk man jëndoon naa saaboog eau de javel ak yooyu yëpp jënd siwo yi nga xam ne moom la ñuy moom la ñuy raxasoo aywa euh, boo euh, bu bu paree ñu defal la defal la liquide boobu noonu. bu ñu demaatee trois heures de temps ñu indiwaat xale yi ñëpp ñëpp raxas ku génn tamit ci daara ji même génn bu gàtt sax booy du <laughs> di nga di nga raxas xaw ma noonu la noonu la demee waaye daal ñun moom dañ may wax sax na ma ni nga enoo feebar bi moom kenn enoowu ko ko ma leen dee feebar musiba fekk yaa ngi koy dégg rek mucc ko ci waaw te fi mu nekk nii buy huit di jot xam nga fii ñun dëkkuñu fee kenn ñu rek ñoo fi nekk buy huit heures di jot kenn dootu génn ti ñëpp ci biir daara ji lañ lañ la ñu nekk waaw loolu yëpp nag euh, dañ koy dañ koy dañ koy def ngir tamit euh, sensibiliser nit ñi ñu xamne fièvre da fay nek fièvre bo xamne dafa jaaxal réew yu mag yi nga xamne fiñ tollu ci technologie ak développement bo tukki wul seen dëkk yi do ko xam man dem naa France doon fa doon faju gis na lañ fi amé ci seen hôpital yi nga xamne hôpital xale yi amna ben hôpital xale bo xamne fi man gëm na na tollu na fi ak Medina bay 3 km lépp de ngeen ay xale rek lañ fay fajee te ñaata ñaata ñaata ci Paris mo fa nek waye ànd ak loolu yëpp sétal seen système bi attanut ni nga xam ne feebar bi noonu la tasaaroo rawatina ñun ñi nga xam tey ñun benn hôpital bu mag leen am fii nii Kaolack fii nii waaw kon moo tax nit ñi dañoo war a góor góor lu dimbale seen bopp waxuma dimbale gouvernement bi ndax gouvernement bi mooy ñun ñu dimbale seen bopp mooy ñu toog ndax bayam noor jartu guddal buñ toogul tamit dinañ toog for force waaw loolu mooy li xam ne moom moo am moo tax nag euh, loolu moom maa ngi ko ciy maa ngi ko ciy lancé ale pour nit ñi bàyyi xel loolu bu baax a baax feebar bii nag feebar bu yàlla indi la yàlla rek mooy ko nga xam ne moo ko mën a tegg ñu ngi ñaan yàlla daa iman yàlla na ko yàlla tegg daara ji ñu ngi fiy jàng ay kaamil ñu ngi fiy def ay dog yoo xam ne lépp pour ñaanal waxuma la Sénégal rek waaye àddina bi lépp feebar bi yàlla jëlee ko fi te yàlla musal ñu ci ay jeexitalam ci wàllu économique ci wàllu social yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def may lancé nag ci sama mbokk sëriñ daara yëpp ñu góor góorgóorlu bu baax ndax daara yi ñëpp ñu ngi leen ñu bàyyi xel ngir moyen ni bariwu fa moo tax te mbooloo ma daf fay bari xale yi dañ fay bëri ñu gën a euh, farlu rek ci seen kem mayoon même ku ci am saabu xale yi di raxasu bu baax a baax xale yi tamit di bañ a di bañ génn waaye tamit ñuy ñaan tamit état bi mu gën a bàyyi xel dégg nga daara yi dem ci ruqurqaan yi parce que am na ay daara yoo xam ne tamit mën naa am bokkuñ ci ay organisation mën naa am préfet xamul leen mën naa am nangam nangam nangam waaye ñu jéem leen a xam jéem leen a jéem a jàppale place boo xam ne presque deux cent cinquante personnes mu ngi fi yaakaar naa booy dimbale war ngaa bàyyi xel dégg nga place boobu noonu ak lu ñu mën góor góorgóorlu tamit mën na am ci jamono jii nii ku nekk sa poos xaw naa rës laaj na ñu bàyyi ñu bàyyi xel loolu moo tax daal maa ngi au préfet département bu new daara ji ci département new la bokk euh, du daara yelwaan waaye tamit du daara internat kenn fayu fi benn dërëm benn dërëm fayuñ ko fi lu fi nekk lépp alhamdulilah rabbil alamin jàmbu xeebu bii nii mooy ki nga xam ne moo ko warlu ci paj yeeg ci lépp te loolu yëpp jàmbatuñ ko fenn waaye nag ñu ngi koy ñu ngi au préfet bu département oo bi gouverneur région bi ci oo tamit président de la république ñu dimbali ñu bu baax a baax dégg nga ci ci ci ci ci daara ji ndax lii bu bu bu mën na nekk exemple boo xam ne mën nañ ko taxawal ci Sénégal fu nekk waaw ñun jubluwuñ ne ñu pour ñun rek ñu taxawal ko waaye eh, ndax nit mën ngaa def lu baax am keneen ku la ko ku ci roy def lu gën a baax te su boobaa yàlla dina la jox ci looy bi ci ci ci yool bi te ñun foofu leen bëgg daara am a àgg waaw ba nga xam ne dem ba daara yi ñit ñi ñëw di fa ut si njëriñ waaye du utul daara joo xam ne day tàllal di ut di ut di di di ut di ndimbal yàlla ñu ko yàlla defal kon ñu ngi leen ñaan wi ñu jàpp ci daara ji bu baax a baax bàyyi xel di nga da daara ji surtout ci waxtu wi nii euh, lépp lu nit di soxla rek soxla nañ ko ndax ñoo xam ne dañoo tënku di nga rek génnatuñ euh, liggéey bi sax demeetul noonu ndax jaay jaay jaay bagage sax yombatut ñu moo tax kon ñu ngi ñaan daal ndimbali mu agsi dégg nga ci ci ci daara ji bu baax a baax noonu laa koy ñaanee préfet euh, bu new waaye tamit ñaan ko gouverneur ñu taxaw ci ñaan ko président de la République ak bépp ak bépp autorité ak képp koo xam ne def kati lu baax nga rek ñu ngi lay invité ci ci ci daara ji nii ndax ñun yool rek lañ ciy ut yool boobu noonu sañ naa cee oo ku nekk. di félicité nag bu baax euh, gouverneur bu Kaolack ak préfet ak sous préfet yi fi nekk wax saytu neen dëkk bi bu baax a baax a baax a baax ñaan ñëpp tamit ñu dimbale leen ci ndax ba léegi yaakaar naa dégguñ ne Kaolack am na kaa kon ñu ngi ñaan yàlla yàlla bu fi benn kaa agsi waaye feebaru fam fam fam fam àgg tamit yàlla na ko fa yàlla jëlee mu yem fa waaye dangay ngay gis tamit ne ay autorités yoo xam ne taxaw nen seeni guddi ak seeni bëccëg ngir fexe ba nga xam ne feebar bi du law ba dugg si dégg nga de ci Kaolack ñuy appliqué kii bu baax a baax a baax ñu ngi leen félicité bu baax a baax kontaan ci ñoom bu baax a baax a baax a baax na leen bu ñu dellu gannaaw ci dara lépp lu ñuy def nii diine bëgg na ko waaw ndax euh, damay wax ne lislaam kuliyaatul xam suma ko tax a jóg wala borom xam-xam yi loolu leen wax mooy juróom yii nii sàmm bakkani doomu aadama bi <laughs> ndax doomu aadama bi moom moo war a gëm yàlla <laughs> moom moo war a jaamu yàlla moom moo war a tabax àddina bu fi nekkatul mën na mën na koo def bu wéeratu tamit talu ko kon moo kuliyaatul xam sa sàmm bakkani doomu aadama ba pare sàmm diineem sàmm dégg nga de xelam ak alalam ak deram juróom yooyu moo tax a jug lislaam maa ngi ñaan daal eh, yàlla tabaaraka taala di wax mbooleem koo xam ne yaa ngi ci réewum bul xeeb sa ñaan na nga toog sa kër nga ñaan dégg naa nag ñoo xam ne ñu naan ay jumaa yi buñ ko ubbiwut ak ñu ñu ñaane yàlla déedéet ñaan yàlla moom sa kër mën nga ko faa defee mënoo dem ci jumaa parce que feebar moo am boo xam ne ragal leen wàlle am Euh, borom xam-xam yi dëppoo nañ ne neen arrêté jumaa yi waxuñ neen tëj jumaa yi kon bu fi kenn di jaxase nit ñi nañu ñu joo amee benn jubluwaay waaw tey boo demee Saoudia tëj neen seen jumaa yi te foofu ay borom xam-xam yu mag a fa nekk Kaaba ga ñu ngi ko tëj ña nga tëj Madinatu Munawwara Baytul Muqaddis da nga de kadalika ngi dégg Iran boo demee jumaa yëpp tëj neen ko kon bu fekkoon ay farfar laal bala ñii dañuy xeex di nag dañuy nangam dañuy nangam li ko doon di nga gis pàcc boo xam ne duñ ko def waaye feebar boo xam ne dafa ñëw jaaxal àddina bi tëj neen jumaa yi te borom xam-xam yëpp d'accord nañ ci kon nañ nit ñi toog seen kër yi jullee fa ne nit ñi toog seen kër yi ñaan yàlla tabaaraka wa taala te jaam boo xam ne ñaan na ñaan boo xam ne ñaan bu wér la yàlla dina nangu ñaanam maa ngi ñaan yàlla mboolem luy jaam yàlla yi di ñaan yàlla na ko yàlla nangu yàlla na yàlla yëkkati feebar bi ci réew mi yëkkati ko ci Afrique yëkkati ko ci àddina bi lépp bi jaay Mustafa sallallahu alayhi wa